kenn du xam li may wax des fois yaa ma gën a xam. ah bala nga jël image artiste eh. bi mais dafa li la war non non mbay dafa am réglage lañ mbay yow yow yow si Ibrahima ya, ya, Naajo <laughs> si <laughs> keneen <laughs> si xal réew mi ma jël ma jël avance waaw maa ngi waaw baax rek sama avance xolal mi ma lay de maa yow il faut ñu waxtaan. <laughs> waaw Mbaye. <laughs> amay foo foo jugee mbay ah dama lay def. Euh, euh. Mbaye man damay Mbour tey Mbour laay joué. Mbour ngay joué si fan. Mbour laa jëm ni la club. ah tey lex club laa jëm tey. mais taala dama la war a yóbbaale sax. taala taala taala ah. dama la war a yóbbaale non bu bu jël sama wërsëg soo ko jiyee rek ama. jël naa ko de. a a daan. jël naa ko de ñoo ko jox. ayca fu album fu album bi ah, album bi ñu ngi ci instant bi ñu ngi ci tournée nationale bi. ah instant bi dem nañu Thiès. jóge Thiès léegi nag. Thiès fan. Sams Prestige lañ demoon Ah. ah donc mais doxoon na. waaw mais nag mbay ñun duñ tëgg duñ dox na mhm. moom Serigne Fall lañ yaakaar. mais fan yii te ko ànd ak chèvre da ngay doxle. mais Talla fan yii nag gisoon naa si réseaux sociaux yi bëri na trop lan mooy problème nekk mooy wax moo baaxul liggéey moo baax xam nga soo bàyyee wax nekk ci liggéey donc ñi bëgg liggéey dëgg duñ la bëgg. ñi ñi bëggul liggéey duñ la bëgg mais ñi bëgg liggéey ñu ñuy suivre. Mhm. Ah. mais lan moo tax ànd àndoog sa doomu nday dem ba doomu de Paris. waaw mais loolu lu jot yomb peut xam na ñun ñoo amul woon jot aussi moom aussi amul woon jot peut-être que buy dem Bercy wala muy dem feneen sunu frère la sunu xarit la ñu bëgg la donc buy dem feneen war nañu mën a yóbbu incha allah mais yi wari waykat yi temps yi dafa mel ne kenn yëngalatul fi nekk nii ah ñu ñu ngi nii di joué teel a mercredi 14 mercredi la ñuy tëgg Saly ah. chaque jour chaque chaque mercredi non non non non tournée nationale la def ah tournée bu ñu jógee incha allah bu ñu jógee Mbour mhm. Saly nii après nak semaine bi top dem fatik inshallah uh-huh. légui man damay Dakar touti ñu dugg ci raison yi. Ah, da ngay da ngay campagne Sénégal Sénégal avant ñoo Europe. Uh-huh. <laughs> label wala ban code je pense que ni signé les, production la les, ah the production en collaboration avec Jazak production musique. Mm, ok. mais ay xaar ay ay affaire yu garaaw mi ngi ñëw incha allah. ah mais Talla gis nañ ko tamit mu mu mu xaw ma kii euh, euh, Bambali gis nañ ko te temps yi mi ngi yëngal bu baax a baax a baax. à chacun son tour. Mm-hmm. Ah, moom moo sama xarit la. Mm-hmm. suma frère la te Sénégal ñëpp xam nañ suñu diggante. Mm-hmm. te yàlla def na ni dafa mën a way te nit la koo xam ne doomi ndaanaan la mhm. donc ma nit doomi ndaanaan la mhm. donc à chacun son tour maa ngi sama tournée mhm. moom moo war a génne single donc bu paree man maa ngi ñëw incha allah ah, ah. mais si lal keroog fan yee passé gisoon nañ génnee benn ah, loo xamante ne bëri woon na ay financement benn clip boo xamante ne mais ba tey gisaguñu clip bi xamaguñu lu ko te waa waaw mais coow la ko xam nga problème bi mooy dëkk bi moo stable woon quoi xam nga xam nga ay xool yu tooy moom mënul ànd ak musique donc c'est ça quoi donc manifestation yi ak yenn affaire yu bari mo taxone mom projet yu bari dañ ko denc quoi donc c'est ça donc dañuy bàyyi ba espace am rek xol yi gëna delu ci ñu mëna a single yi ñu bëgg quoi inshallah allah bi bi bi bi bi ah, single bobu mais cartonné gul carrément carrément mais single bi dafa dafa génnagul lu génnagul gul muy cartonné mbay mais lu génnagul lu muy cartonné. mais daal looy xaar si ay ay ay. nga ñëw Almadies mbay sa question yi bari na mbay. nga ñëw Almadies xam nga. Euh, mais mais man almadi man bi fa ñemewul laa fa daan dem man mën naa ni boîte almadi yi vok laa fa joué gul mhm. def nañu Five def na ñu Baara Mundi def nañu Villa Cristal mhm. def nañu boîte yëpp ba pare xam nga jóge naa Sorano en décembre mhm. ah, donc voilà donc le ah, le cinq août aussi incha allah muy suma anniversaire ma koy defee Radisson Blu Dakar c'est le cinq août incha allah boobu da ci da ci au Sénégal yëpp le cinq août maa ngi koy defee Radisson Blu entrée huit personnes plus consommation buffet cent mille unique trente mille. Mm. incha allah euh, mais euh, euh, ñu dem Grand Théâtre incha allah. Talla mm, mm. kii fi mu nekk nii sooy xool ci woykatu Sénégal yi. li mu bëri bëri woykat bëri woykat. Ah. da ngay gis ah, ñaari woykat rek la ñuy tudd. Ah. wala ñett est-ce jotul ngeen yéen ñi nga xam ne su ngeen su tuddee ñooñu yéen lañ ci teg. waaw mais xam nga may ah, may ah, kan moo euh, mënoo kenn mënul dëggal sa bopp ne man maa si tegu man maa solal artiste bi man maa xam nga xam nga xam nga ki ci tegu ah. wala maa ci tegu amul sens mm-hmm. da ngay fexe sénégalais yi teg la fa mm-hmm. nit da ngay liggéey mm-hmm. soo liggéeyee sénégalais yi ñoo lay teg foo xam ni yow sax doo jàpp ni àgg nga foofu quoi fekk ñun commencé gunu dañuy door ay xale lañu ñu dara lu ñu perte ci musique yaa may dégg mag ñi nañu nañu nangu lu ñun suñuy mag lañu yéene leen ba pare lu ñu am ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii leen ko Euh, yéene leen ko donc ñun tamit sunu tour mi ngi ñëw à chacun son tour incha allah. Ah, mais mais loolu yaa koy ñoddi sa bopp. parce que moom laa lay du lu ñuy ñoddi mbay lu baax boo ko liggéeyee. Mm-hmm. Sénégalais yi teg la place bi nga war a tegu. est-ce que yaa may dégg naa ne man Sénégal maay ah, artiste mujjee ah, ñëw ah, Sénégal trois ans de carrière la ñu def mm-hmm. dem su Sorano benn euh, mille cent deux places mm-hmm. def ko guichet fermé mm-hmm. tëgg Radisson daaw raxas bi donc ren suma anniversaire ñu koy defaatee Radisson donc décembre ñu a dem Grand Théâtre donc nekk en moment di def tournée nationale xam nga ni kooko fawul ah loolu looy wax kon artistes naan ah léegi link la artiste bi soo su war nekk au plan euh, xaw ma il faut ñu jàppale. artiste bu ci nekk il faut am ne link. jàppale góor moom góor du jàppale dinañ ma jàppale. góor kenn dox na dama jàppale góor da ngay a liggéey jàppale sa bopp waaw am ñoo xam ne seen papa la ñu jàppale wuñ leen hmm. te ñoom dañoo ba def seen ah, mais yow yow sa jaar papa que sa papa su la jàppale woon coow <laughs> sa jaar jàppale nekk doomu maam góor a jàppale la hmm. dégg li ma la wax leneen la xam nga laa lay waxaat hmm. mooy nit ku nekk na nga fex ba wàll ba nga nekk da mm. nga am staff bu la bëgg mm. bu la yërëm bu yéene am ay musiciens yi nga xam ni yéene na la bëgg la yërëm la te loo am bokk ko ak ñoom mhm. ba pare yow nga nekk benn nit boo xam ni euh, bul foo mhm. ak nu mu mënti deme mhm. wax ko ak say musiciens ak nu mu mënti demee wax waxtaan ko ak say staff donc loolu encadrement bu baax boo ko amee amul ku la mën a téye Sénégal voilà ah. ah loolu looy wax si euh, euh, keroog ñu ne wa coow lu bëri woon torop ñu gis ay yenn woykat di lancer seeni message ne nañ baali bàyyi waali mu tëgg nañ baali waay yow ak fi nga fi la waali teg soo yégee si seenam mu sigil la lan moo tax jëloo sa téléphone def vidéo soutenir ko loolu mooy suivre ma parce que man maa njëkk def loolu mm-hmm. Sénégal maa ko njëkk def. Mhm. c'est ça donc euh, Wally Ballago Seck du moom lañ doon kaasal. Mhm. bu fekkoon ni concert boobu amul. Mhm. ñun artistes yëpp dañuy am problème. parce que du politique wala du manifestation wala du leneen moo war a mën a téye sunu musique bi ñu war a jàllale à travers le monde. parce que concert boo xam ne yow artiste bi organisé ko. promoteur moom moo la jël fay la xaalis te promoteur bi n'est pas un sénégalais malien. donc moom lijjantiwul Sénégal li a rafet.

ak maag mom bokku ay yoon. Mm-hmm. Diazaka c'est mm-hmm. politicien. Mm-hmm. moi je suis un chanteur. Ah, ah. kat la mais sa papa la Macky papa la. Ousmane Sonko sama papa la ñëpp la ah. faral. faral na Macky faral na Ousmane Sonko. <laughs> faral na Khalifa Sall <laughs> ñëpp la faral man. mais mais sa position man 19 h la yow lu sa voté. ba na. ah mais ah mais sa papa ak limu mu engagement. si loolu da ngay dem taal sa auto nga dem kër Diaz nga laaj ko engagement am. loolu moom la concerné man ça me concerne pas. mais yenn saa doo ko woo sax ne ko papa yii baax. waaye yow dama koy owee yow. ah ana doom ak jubboon sa baay. ah mais su ah, ak doom jubboon sa baay nga yow. ah, ah man papa su ma deful lu ma waxoo. waaw papa man xaw ma loolu. ma laa xam mm. sama papa su ma waree génn ma dem ne ko papa ñaanal ma mm. dara mm. ma ñëw ne ko déglul ma mu déglul ma barke baay su ma amee jox ko mu ñaanal ma ma li ci des nag loolu moom la concerné ak carrière am boo amee loo koy laaj nga dem gërëm jas moom wanul baatam loo ko laaj mu tontu la. ah, ah, ah mais tey est ah, bi génn Sénégal dem teggi lu mel ne ay. mais loolu mhm. boo tukkee wala nangam waru ñu am complexe ay tukkee ak nangam nangam. moo tax nekk. Mhm. fa war nga mën dem bégal ko. Mhm. man a dem France. man yàkkamti ma suma bu nekk ci monde bi incha allah buñ ko te gëm nañ ko te ñu ngi ci yoon bi te nañ ko def incha allah Ah, ah, ah. mais boo xoolee si artistes yi nga xam ne dañ naan ay kii yóbbuwuma fii kii yóbbuwuma fii kii yóbbu. déggoo nee naa la góor du wax jàpp dañ ma jàppale. Mm-hmm. man kenn bëgguma kenn jàppale ma kenn jàppale. Uh-huh. Uh-huh. naa jàppale sama bopp incha allah. Uh-huh. bu neexee yàlla. kan mooy sa artiste préféré nii. bëri na ñëpp sumay artiste préféré lañ. ah non non fi nekk au fond nii. kan nekk au fond man. maa fi ne. ah yaa dàq woy Sénégal. naa wax jaajëf kon kon kon kañ ngay ñëw ah, euh, euh, kañ ngay tersiwaat si Dakar. waaw ma xool tey ñu ngi dem euh, Mbour Saly incha allah Lex Club. xam nga mu nekk événement boo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi koy waaj. Mhm. donc su ma jógee foofu incha allah tous les mercredis aussi maay gaynde club gaynde Anne Marinas. Mhm. donc teewul dew ma rek tournée teewul du ma tëgg Dakar. Mhm. mais tous les mercredis maa ngi gaynde Anne Marinas fii Yaraax xam nga. donc c'est ça donc nak après inshallah dinañ joxe benen date pour jouer Fatick sargal Matar Ba incha bu nexe yalla ah Matar Ba. ah Matar Ba Nicolas ak Ibrahima suma xarit suma papa. Mhm. le meilleur ministre des sports de tous les temps. ya loy wax ci ci keur gi ñu toj. doon ah mais dañ koy ñaaw rek pa que toj baaxul. toj mom baaxul. waaw mhm. ça. <laughs> jaajëf jaajëf. <laughs> ma yore garaaw quoi. <laughs> ah yéen a ngi waajal. ah.